les passations de service toujours pas programmées. Le premier ouais. acte posé par le bureau municipal après demain 10 mai. C'est à Ziguinchor. Hum. Construction, baisse des prix. L'architecte Ousseynou Faye donne la recette. Hum. Hum. muy wax lu yàgg Sonadis. ressusciter hmm. réorganiser et transformer la Sonadis en une grande centrale d'achat de produits alimentaires c'est possible. de base implantée partout conception d'autopont innovant plus léger moins lourd et moins encombrant <laughs> imposer un visa de contrôle de permis de construire waaw yooyu de ay kiyam la ay waxam la Ousseynou Faye c'est un architecte Sonadis da amoon na fi njëriñ defe naa. le dernier régime créé nañ fi kii du marché d'intérêt national mais c'est un peu loin quand même mu jam ñaajo c'est un peu loin. Hmm. liberation qui nous dit zéro franc CFA en 2016. tribune la 2017 ah, tribune la indi ñoom Libération la tribune nekkul fii sax. la personne de son commun. sama gars yi kon da ngeen a xamoon ah. dañoo xamoon. ñu doog commencé woon. am ah? ah, ma xool. la personne de son commun. le ou lieu. c'est par rapport à l'agriculture. Mmh. Euh, Abdoulaye Seydou Sow ki défie l'OFNAC et la Cour des comptes. Hmm. Hmm. ci tribune gisuma ko de yoruma ko fii. Euh, libération. gars yi ñu dem waaw euh, direct news affaire jax ñëw jël yéeg. Hmm. romb gars yi de deux points ba commencé am espoir. dëgg la dañuy jékki-jékki lâché man dañ ko doon invité parce que politique lañ doon waxtaanee parce que fait autre mais beneen yoon. bëgg naa bu ñëwee fii on va parler du du, du basket sénégalais. Mm. parce que vraiment. Mm. mënuñu la mënee ba pare nga taxaw toujours di arrière rek mais doo pressé doo défense te à un moment donné bu ñu ko defee les deux minutes yu ñu ko defee si la ñëwee si la si la ñu yi si la ñu donc c' était ça la solution. Mm. ah man affaire jaaxal na ma de doyen. la presse du jour. Oui, bah, disons, commencer par euh, bon, le sport, c'est pas habituel, mhm. mais euh, c'est vrai que la GIA, quand même, j'ai écouté le, le, coach, mais c'est dommage pour la, pour la GIA. Euh, ouais. pour, la pour la Sudouane, oui. que Monon n'a gagné. et malheureusement, pour des erreurs euh, d'organisation, ils ont perdu euh, ouais. bêtement. Mais ça montre aussi que de quand même, tu vois, la compétition à l'échelle africaine, on est faible. Mm. nos clubs uh, muy uh, basket muy uh, football vraiment des na quand même quoi on doit franchir un pas au niveau au niveau continental mm-hmm. bon à part le, sport c'est vrai que y a le PSG Ah, parce que nekk naan non sama équipe mooy joué tey di kii noonu mais. Euh, le PSG c'est comme euh, non bon c'est c'est un grand club. Oui. c'est un grand club européen mais il n'est pas à l'échelle euh, de la. compétition européenne c'est-à-dire bu ñu dajee ak les Allemands les Espagnols. Mm-hmm. les Anglais les clubs français il y a que le PSG qui émerge. bon ça montre que aussi France des na comme nous ñun on on on se lamente sur nos équipes dans le continent le, la France c'est la même chose c'est le même type de problème mm -hmm. elle n'est pas encore au sommet de l'Europe ouais. Euh, dans au niveau des clubs mais à l'échelle internationale ben, c'est une grande équipe mm-hmm. Ben, c'est la même chose On a une grande équipe de foot euh, internationale, hmm. mais les clubs locaux, les clubs régionaux, ouais, on, est, ouais. on, est, on, est, encore euh, à la périphérie. Bah, c'est pour brancher peut-être sur l'actualité dominante quand même, c'est mmh. le hmm. voyage du président en, en Côte d'Ivoire. Hmm. Je crois que c'est important que presse bi yëpp pratiquement may nañu nopp voyage président bi. day wane ne que diggante Sénégal ak euh, Côte d'Ivoire moom yàgg na. Bon, que c'est des, bon, c'est des pays frères, c'est des peuples frères, que mmh. on a une longue histoire euh, commune. Mmh. Bon, peut-être, je crois que quand même euh, le président Diomaye ak euh, Ouattara, il faut qu'ils aillent plus loin parce que économiquement, les deux pays n'échangent pas réellement. Euh, si on parle agriculture, industrie, même euh, par rapport euh, Euh, à l'échange entre les privés euh, sénégalais. Bon, vraiment, on devrait faire quand même plus et mieux. Mm -hmm. étant entendu que Sénégal et Côte d'Ivoire, c'est les deux grandes puissance au niveau de, de l'Afrique de, de l'Ouest. Mhm. Donc on devrait être un exemple quand même en termes de coopération économique, commerciale et même sur le plan politique. On a, on a beaucoup de, de choses à, à, à partager. ça quand même c'est un, problème bon l'autre problème au niveau de euh, nous euh, suñu diplomatie bi je pense qu'il faut que ñu tenir compte quand même d'une nouvelle donne au niveau du Sahel mm-hmm. soo xoolee bu baax euh, bon Mali euh, pratiquement euh, Burkina Guinée Niger tous ces pays-là ne sont pas réellement dans la mouvance comme on l'aurait souhaité ñu ci bëri ñu ngi génn ci les dynamiques euh, CEDEAO wala UMOA. Mhm. ils se préparent à se réorganiser donc ñun suñu président bu bees bi ban taxawaay la war a am. Mhm. avec ces pays là parce que nous on ne peut pas ne pas commercer avec le Burkina wala avec le Mali. Mhm. bon tous les tous les autres pays ban type de diplomatie la ñu war a am. pour euh, au moins au moins on puisse avoir la relation bilatérale. Mm-hmm. et même pourquoi pas bon essayer de voir naka la ñuy jouer ñun quand même on a une influence sur le plan diplomatique en Afrique qu'est-ce qu'on peut apporter à ces pays-là et, et le il faut renforcer cet effort-là mm-hmm. pour pour que l'Afrique ne soit pas encore trop éclatée mm-hmm. parce que plus on est éclaté plus on est faible on, on, on l'a vu avec le Mali que c'est un partenaire euh, important bu ñu amee blocage il y a eu tellement d'impact négatif pour nous. Mm -hmm. on a perdu des milliards en, en deux six mois. Mm-hmm. Euh, je crois que loolu Diomaye war na ci taxaw quand pour euh, renforcer ces ces relations là. Mm mm-hmm. bon à part ça bon pour revenir un peu sur la politique c'est l'APR. Ouais. bon Aziz est la on aura l'occasion d'en <laughs> parler. parce que y a des appels de Macky Sall qui se répètent. Mm-hmm. en premier communiqué euh, na ngeen. Euh, na ngeen gore bon deuxième appel euh, il faut vous mobiliser Trois, troisième appel il faut vous réorganiser bon euh, un chef d'état-major qui est à l'étranger mmh. qui fait des appels à son armée mais l'armée ne répond pas mmh. donc il y a un problème il y a un problème de, dans la chaîne de commandement de la paire mmh. comment la paire euh, va vivre euh, le mmh. pilotage de Macky Sall à l'extérieur mmh. est-ce que lu daloon euh, PDS lu dal c'est quoi l'APR dans l'opposition ban orientation de la l'APR war a proposer à l'APR à Benno bah, quel est l'avenir euh, de de l'APR c'est c'est tellement flou que euh, moom moo waroon nekk aujourd'hui l'acteur principal de l'opposition logiquement parce que c'est son candidat quand même qui a eu 35 pour cent mm. bon mais on n'entend pas l'APR on n'entend pas le Benno Bon, Amadouba n'est pas chef de parti. Ah, hmm. C'est ça la difficulté d'Amadouba. Il n'est pas. Bon, ça c'est un débat. Bah, on l'entend. logiquement le, logiquement c'est lui. donc moom la ñu waroon dégg. c'est non Macky Sall la <laughs> ñu waroon dég mais logiquement Amadou Ba c'est le chef de l'opposition. Mm-hmm. su dee jël nga critère. Euh, c'était un candidat moo arrivé deuxième mm-hmm. donc logiquement ci élection présidentielle bi moom moo war a nekk chef de l'opposition mm-hmm. mais comme il n'est pas chef de parti il n'est pas chef de coalition bah il faut l'aval au moins de l'APR pour mu mm-hmm. mën a am statut boobu donc c'est dire que bon l'APR c'est des questions quand même et, et peut-être le dernier aspect c'est que ils sont majoritaires à l'Assemblée que comment l'APR va gérer d'ici six mois le Parlement. Mmh. C'est, le groupe majoritaire. Il y a beaucoup de réformes euh, qui sont annoncées. Mhm. Est-ce qu'il y a des qui négocient avec le pouvoir? Est-ce que c'est Macky ou est-ce que c'est l'APR? Ouais, il y a beaucoup de questions quand même. Il de c'est un parti mhm. on, attend beaucoup de l'APR comme on attend de la majorité présidentielle. Ouais. Allô? Euh, ci euh, le sport. le PSG n'a pas démérité et puis on se eh, reprend affaire supporter la affaire supporter la <coughs> maintenant pour la douane 2-2 non non non 1-0 la woon bon euh, ah, douane moo gagné woon non non pas Dortmund moo gagné woon yaa ngi euh, douane ba Alaba Alaba jaxasoo non non non affaire bi dama ci war a pare dama ci bëgg pare <laughs> damay bañ Marseille yi sonal nañ quoi ñoom tra voilà donc les Marseillais sonal nañ parce que suba dañu war a football donc on prie pour que mm. une équipe française dem euh, en finale parce à la France Atlanta match retour. Real kan lay daje. Euh, lay dajal quoi. donc loolu tamit euh, match moo nekkoon 2-2. waaw à l'aller je par rapport à la France euh, sur la situation du du football français mooy réalité quoi. Mm-hmm. ils ont une grande équipe nationale et de petites de yoo xamante ne au niveau c'est li waral loolu mooy c'est parce que l'exode. ex yu yi wu. di dem dans d' autres pays pour développer sport boobu. te mm-hmm. ñoom euh, duñ ci mën a am donc peut être moo situation bi parce que moom moo dal Sénégal dal ko dal yenn pays au niveau de de l' et des États-Unis mm-hmm. parce que soo gisee joueurs yu mag yëpp dëkkuñu fi ñuy footballé. donc euh, ouais. malheureusement euh, dañuy am équipe bu mag mais duñu am club bu bu baax. maintenant sur le plan sur sur la sur par rapport au voyage du président de la République moi je je vois que en train de marque de de d'imposer ses marques. Mhm. C'est-à-dire, euh, il est en train d'aller vers les pays où euh, les présidents ont été démocratiquement élus. Ça, il faut faire le constat. Mm -hmm. C'est-à-dire, dem na Gambie, dem na Guinée-Bissau, mhm. dem na Mauritanie, dem na Côte d'Ivoire. Foofu amul putsch, les présidents ont été démocratiquement élus. Mm -hmm. C'est-à-dire, lui, il est dans l'orthodoxie de la République. Mhm. maintenant nag te par rapport aux coopérations yi nga xam ne moom moo war a am parce que parce que ñoom dañuy prôner l'intégration africaine le panafricanisme total. Mhm. soo gisee depuis que ñu ko falee ba léegi demagul à l'étranger demagul à l'Occident. demagul aux États-Unis ou autres fi ne nii dafay jël base bi teg ko ci Afrique pour mun a teg loxoom mën mun a dem donc il est en train de prendre ses marques. Mhm. par rapport à la diplomatie. et démarche bi wan nañu ban type de diplomatie la ñu la ñu la ñu nar a am suba ban type de diplomatie. diplomatie boo xamante ni basée sur parce que le ministère c'est le ministère de l'intégration africaine basé sur le panafricanisme maintenant nag y a les coopérations yi nga xam ne moom moo ci am par exemple les la commerce les <coughs> les commerces yi nga xam ne mën na ci am les relation commerciales yi nga xam ne dëkk yi war nañu ko am mm-hmm. parce que aussi euh, on ne peut pas développer un pays à travers euh, l'importation venant de l'Occident mën nañ développer réew mi à travers l'importation bi nga xam ne day jóge ci Afrique donc ci ci ci au niveau de l'Afrique donc consolider la CEDEAO considérer les les relations bilatérales entre les pays africains pour pouvoir aller se battre au niveau de l'accident et prendre les positions donc foofu dañuy dañuy gis ni c'est clair dans la démarche li nga xam ne bëgg na ko moom lay wone maintenant par rapport à la à, à l'APR bon on attend de voir ce que ce que Abdou Aziz dira mais on a vu que l'APR comme ni ñu koy wax normalement doyen wax na ko parce que l'APR moo waroon nekk opposition moo waroon taxawee taxawaay opposition mais il faut comprendre que ils avaient des responsabilités et il faut qu'ils respectent aussi le délai de, de, de, de le délai en rigueur qui est, en vigueur qui est de respecter les cent mois, les 100 jours. balaa ñuy porter la communication donc euh, la communication pour nit ñi mën a xam ban type de d'opposition la ñu war a mun a am parce que li li li les responsables de l'Alliance pour République n'est pas le plus petit militant le plus petit militant il peut se permettre certaines déclarations mais le responsable moom taxawaayam mooy xaar respecter 100 jours yi mhm. parce que loolu aussi euh, élégance républicaine la pour mën a respecter 100 jours yi pour mën a wax ci les positions maintenant la survie de l'Alliance pour la République ça c'est des questions qu'on doit se poser est-ce que Macky moo Voilà, est-ce que Amadou Baké était candidat doit prendre son courage en deux pour prendre en charge la question de l'Alliance pour la République Voici deux questions qui se posent. Maintenant, quel type d'opposant nous devons avoir Est-ce que l'APR va continuer si nous dans le temps avec ces dinosaures-là, ces vieillards qui sont à la tête de ce... Ah. Oui, mag ñi nañ ma baal mag ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo dire mag ñi nga xam ne ñoo ñoo ngànkoon parti bi démb ak barke démb. c'est des questions c'est des interrogations sont pose est-ce que mag ñi nga xam ni ñoom ñoo gànkoon parti bi démb dañ ko war a gànk parce que dafa am situation bu bees moo y a y renouvellement du personnel politique avec l'accession l'accession l'accession de Bassirou Diomaye la tête du parti un parti du pouvoir un parti jeune qui arrivé au pouvoir est-ce que dañuy maintenir les mêmes personnes wala dañuy dem vers la renouvellement du personnel je moi je pense que renouvellement pas alternance mais renouvellement du personnel politique xam nga jël jeunes yi mettre en exergue parce que jàpp naa ni pour faire face à ce régime là il faut mettre en exergue les jeunes Wow. comme ñoom Aziz ñii ñu ñu jox leen responsabilité yi parce que c'est des jeunes qui peuvent amener un discours nouveau yaa développé de. waaw kon bàyyi ma nopp. yaa ngi génn sa ne foofu nga far. alors fa bàyyi la ne de c'est des questions que je pose. ndax bi yéen kaay xëyee tey yéen tamit laaj nañ leen de waa APR gars yi ñu leen di wër de fu ngeen ne. bon maa ngi nuyu ñëpp ah. di di nuyu waa Sénégal parce que seen télé bi ñëpp koy seetaan. Mm-hmm. di nuyu d'abord sama militant yi ak sama militante yi fu ma dem la ma leen di nuyu parce que ñoom ñoo tax may politique di nuyu sama famille yëpp ah. mm-hmm. donc euh, waa APR ñu ngi nii toog. <laughs> reetaan nga waaw ñu ngi nii toog ah parce que aussi bu fekkee dañu ne dañ fal président. Mhm. nañ ko may grâce. Mhm. mu defaru boog pas liggéey defaru. mais ñun ñi nga xam dañu dañu yàlla dogal na def dañu gagné. mun mhm. nañu may quelques jours quand même ñu ñu ñu defaruñu tamit. ngeen xoolaat seen bopp. waaw mais ñu ngi fi ñu ngi si jàmm ak salaam. vraiment di di di remercier président de la république. waaw euh, Macky est-ce que aussi am na loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte euh, président Macky Sall. Euh, dama dégg doyen wax léegi est-ce que APR du mujj comme PDS. Mm-hmm. en fait mënul bokk. parce que yàlla dafa dogaloon président Macky Sall bokkoon ci PDS. di liggéey ak ñoom ay at. 2000 mm-hmm. ñëw 2000 2012 ñëw sénégalais wóolu ko jox ko réew mi. pour dire vrai APR ci boppam am diggante bi ñuy opposé ak bi ñuy jël réew mi amuñu woon temps boo xam ne sax dinañu organiser suñu parti. loolu moo ñu loolu moo ñu loolu moo ñu topp ba léegi diggante bi ñuy organiser suñu parti ak bi ñuy réew mi dafa jege trop. te ba tey organisé wul de. non euh, fa laa jëm <laughs> cest ku nekk ak si système aussi. Mhm. bu fekkee organisé wu jël réew am ñaari mandat mais mhm. peut-être que loolu moo la arrangé. Mhm. mais peut-être que inconvénient fu muy nekk mooy boo génnee mandat ba boo jeexalee ñaari mandat yi foofu lay problème di nekk mais ak qualité gi ñu am ci président la république comme ni ko doyen waxee mi ngi mi ngi mi ngi woote mi ngi mi ngi wax ak ay militants mi ngi waxaata ni di remobiliser waat partem vraiment te loolu moom ñun ñëpp dañ koy rafetlu ku mel ni man ak keneen ak keneen ñun Macky Sall la ñu xam mm-hmm. APR ci boppam la ñu xam président Macky Sall mooy mooy président parti APR. d'accord keroog ñuy def congrès. dañu dañu fal président Macky Sall comme président du parti président du parti APR. Mhm. ba pare doo ko def candidat Amadou Ba. ok loolu moo fa am ñëpp di ko dégg ñëpp salué ko ñëpp rafetlu ko. mu jóg taxaw jël parole mu ne Amadou maa ngi lay dénk nga muñ nga góorgóorlu tànqamlu. lu bari di ko dégg lu bari dina la dal mais na ko muñ te xam ne noonu lay demee. est-ce que discours yooyu bokkul ci lu leen affaiblir non fa laa jëm non non non fa laa li mu koy wax ñëpp a taxaw. <laughs> cest à gis nga gis nga nit ñi ci boppam ñoo bëgg dugg ci diggante Amadou Ba ak Macky Sall. kon daal amul problème. man ci sama gis-gis man Aziz ni ma xamee président Macky Sall waxuma amul problème waxul am mais loolu man du sama problème xam nga sama problème mooy lenn. Mhm. nan la ñuy def ba deux mille vingt neuf président ñëwaat ci dëkk bi jël réew mi moom Macky Sall ah. waaw. Eh. dégg nga nan la ñuy def ñun waa APR. Mm-hmm. ba deux mille vingt neuf président ñëwaat ci dëkk bi jëlaat réew mi kon ça veut dire que au sein de l'APR amul kenn koo xamante ne war na mën a jël làngee dem dem. Adama ñun président Macky Sall mooy suñu président parti mm-hmm. Amadou Ba moo nekkoon. candidat coalition Benno Bokk Yaakaar. parce que tout simplement le président Macky Sall n'avait pas un troisième waaw parce que président aussi nañ nañ ko waxal nañ ko wax nañ wax dëgg rek te yàlla tax bi ñuy fal jomaay mii keroog bi ñuy waat. Hmm. ñëpp dégg dégg nañ lu ñu wax. Hmm. dañu gërëm président Macky Sall ci grandeur bi mu am mënoon di def troisième mandat mais def ko. Hmm. parce que boobu mi ngi mi ngi sauver réew mi ci def pour loo xam ne nii ëllëg dina ci am way du way sax parce que mënoon def kar troisième mandat moo na gagné mais dafa xam ne aussi démocratiquement waxoon na ko bi ñu ko falee 2019 la ko wax. neleen leen ma def troisième mandat. léegi loolu moo tax ngeen jàpp ne war na mën a ñëwaat 2022. Ah, am na ci droit non. am na ci droit kay. waaw c'est ça man nag li may ñaan li nga wax noonu si si man maa ko wax. ça répond à une question. si man maa ko wax man Aziz fan lañ tënk non déggoo ma la dama ne. damay ñaan ñun ñëpp waaw maa ko assumé. man maa bëgg président Macky Sall dellu si en 2029. ñu jël réew mi balaa waa APR naan moom moo wax ak. non man maa ko man kenn déggoo ma lool benn candidat lañu amoon. Mm-hmm. muy Amadou Ba. te gis nga gis nga élection yi phénomène moo am rek tey Amadou Ba bu àndoon Macky Sall ci oto chaque jour di campagne ñoom ñaar ñu génn xaalis bu bari du tey ñu gañe ñu. parce que mm-hmm. phénomène bi am na mm-hmm. en 2012. mais Ablaye moo ñu ëppoon woon c'est-à-dire bu ñu ko jiñ kenn. nañ nangu ne lii la yàlla dogal. dañ a gañe. jiñu bu ñu ko jiñ Macky Sall bu ñu ko jiñ Amadou bu ñu ko jiñ kenn dañu waroon gañe gañe nañu nañ ko assumé nekk ay opposant di opposé hmm. normalement. du ñu sànni xeetu def dara ngeen opposé dignement. c'est ça ci lañ nekk. ok président Macky Sall on se demande s'il est encore. solennellement nañ ko waa jël partem ñu jàppale ko mu jëlaat réew mi en 2022 parce que lu la question la question bu ñu posé ci ci ci ci titre bi doyen mooy dañu toog di xaar boobu ba tey peut-être dégg. Hmm. waaye après dégg ñu kenn il a fallu que le président Macky Sall les appelle. c'était kii du waa Tamba semaine bi. Tamba Tamba bu mu wootee affaire yi commencé na léegi. yëngu commencé waat yëngu moo tax le le jeu. entre mm. guillemets euh, du de de de d'aujourd'hui defe naa ne am na il a son sens. non ça un sens parce que quand bon. Euh, bu dee taarix euh, APR. Mm. bon euh, moo moo moo moo moo tax APR am. Mm-hmm. Parce que c'était quand même le, le, l'ancien adjoint du PDS, mhm. moo bëru créé parti am muy APR. Mhm. donc pour l'essentiel en tout cas de 2008 ba keroog bi muy jóge ci nguur c'est le maître de de l'APR. c'est mm -hmm. c'est indiscutable d'ailleurs mosuñu am un second de Macky mhm. donc mm de Macky Sall euh, ci APR moom euh, c'est son parti c'est lui le chef. Euh, Euh, je crois que aussi mhm. je j'ai pas souvenance d'une contestation de l'autorité de Macky mhm. Sall. Mhm. je je je me souviens pas. il y a eu des divergences moom ak euh, certains de militants de responsables mais ñu ci bëri. soit dañu leen euh, dàq. ou soit ils se sont soumis à l'autorité de Macky donc pour en termes de jeu moom l'APR c'est c'est l'affaire de Macky Sall. le jeu a toujours existé maintenant ni mu gouverner aussi. Euh, bon soo soo xoolee en tout cas la difficulté de la l'APR pour moi c'est que l'empreinte de de de Macky elle est elle est elle est, elle excessive. Mm-hmm. Mm. c'est-à-dire que ñi mu yóbbu ci nguur yëpp c'est c'est c'est c'est des proches ñi nga xam ne il a confiance en depuis le premier cabinet de Macky Sall en 2012 ba le dernier cabinet Macky il a une manière de sélectionner. Mm-hmm. c'est eux qui sont restés les fidèles de Macky Sall jusqu'au bout. Même les problèmes de, Amis, de Amadouba viennent de là. Avec les Abdoulaye Daouda Diallo et autres. Non, tout ce que Macky, les gens que Macky a fabriqué, a mmh. accompagné, ils ne, veulent, ils ne veulent pas. Ils n'ont jamais voulu du départ de Macky. Mmh. Mmh. Mais par contre, un euh, Amadouba, bah, qui est un technocrate qui accepte l'autorité, qui est fidèle, mhm. qui se dit que j'ai une opportunité, Euh, on l'a rejeté pourquoi parce que amul légitimité à pair mm -hmm. je crois que c'est là la faiblesse de de Macky c'est-à-dire que il a il a eu si tu veux une main trop lourde sur la paire mm -hmm. trop lourde ce qui fait que bah, c'est pas étonnant que Aziz Dine parce que c'est c'est quand même cinq ans ans la paire ne peut pas fabriquer un leader dans les cinq ans à venir. parce que c'est le, le maître Macky reste encore le maître. ce soo xoolee sax un parti qui est défait qui a une aussi grande euh, défaite le message ne vient que de Macky. Mmh. les, autres c'est comme si pour ñoom. bon l'APR c'est mag il l'accepte aussi. est-ce que tooguñu di xaar aussi doyen vu les ak jamono ji ni coow lu bëri c'est ce que benn benn d'ailleurs benn journal titré na ko par rapport à tous ces scandales yi ñuy wax fan yi est-ce que loolu taxul aussi les ténors ñu xaw a toog noppi di xaar. bon pour moi. parce que des rapports non, qui sortent de. ils ont affaire avec à Macky Sall Macky est trop discret. il est trop discret. Macky est même ni mu demee ci PDS. le PDS ne s'attendait pas à ce Macky-là mm-hmm. ah quand toog ci Sénégal quatre ans ngay def campagne PDS xamul lu ngay li ngay li ngay li ngay préparé ba nga ñëw nga bett leen nga am vingt six pour cent bon il avait compris que euh, il fallait être discret qu'il fallait choisir qu'il fallait ne pas faire d'erreur mm-hmm. euh, et ça c'est ce qui est arrivé pendant tout son règne cest à que Amadou Ba pourquoi il ne parle pas Parce mhm. qu'il sait qu'il a affaire qu'avec quelqu'un qui est discret, qui... Euh, euh, parle quand faut. En tout cas, il n'est pas, il n'est jusqu'à présent. De... Mm -hmm. C'est-à-dire un, un était capable de parler de tout en public. Mm -hmm. c'est le contraire. Mhm. Et je crois que c'est cette personnalité-là. Euh, bon, pour moi, je sais pas si c'est une erreur ou un défaut. c'est-à-dire qu'il y a une personnalisation du parti et du pouvoir. Mmh. Ce qui fait qu'il n'a pas préparé. Que soit euh, Daoud Diallo, euh, Amadouba, les autres, mais préparé personne pour sa relève. Mmh. Mmh. Ça, c'est une manière, c'est une volonté politique, c'est une manière de diriger. Parce que Khamna, que, bon, à part lui, mm-hmm. ba ñeneen ñi c'est pa des fédérateurs. ku nekk dafa am foo xam ne foofu nga nekk. donc on bon, comprend on comprend euh, Abdou Aziz non c'est le jeu c'est c'est c'est une volonté c'est une manière de diriger ah. c'est-à-dire que un Wade mais Wade pour nga remplacer Wade du yomb. Mm-hmm. c'est pa comme le PS par exemple. Mm -hmm. ben PS xam nga Wade euh, Diouf a dirigé. mais au moins tu avais Tanor tu avais Niass tu avais Djiboka tu avais. Euh, et cetera la la gestion elle est un peu plus démocratique au PS. en tant que les libéraux. il mhm. euh, y a un problème quand même de de gestion de des personnalités. Mhm. Et ce qui fait que pour moi bon Macky aussi il n'accepte pas les débats contradictoires. ça hmm. aussi c'est un problème c'est-à-dire que quand tu n'acceptes pas soit tu es derrière moi ou contre moi mais ceux qui ceux qui sont proches réel réel réellement mais duñu la duñu la duñu la duñu la attaqué du ñu nangu def ak yow euh, débat contradictoire hmm. ça aussi bon am na avantage am na inconvénient dañ lay ngay doxal daal oui ça on accepte que tu es l'autorité hmm. mais autorité bi kenn sañu wax bu ñu la waxee nga dàq walla nga dóor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 loo loo loo tàng tàng tàng tàng à l'opposition soo ñëwee pouvoir discours bi dafa war a changer comportement bi war a changer parce que boobu homme d'état ngay doon. Mm-hmm. mun nañu wax ni fee comprendre woon mais léegi war nañ la mën a coacher toppatoo la on a vu Diomaye ah le président de la République moom mu ngi ci mi ngi doxal quoi. comme président de la République ci waaw mi ngi góorgóorlu quoi. même su nekkee am na ay quelques couacs yoo xamante ni te couacs yooyu sax c'est pas dû personne couacs yooyu. d'habitude ñi nga xam ne ñoom la àndal mooy les les snipers là les influenceurs photo image yu bëri ñoom ñoo koy génn ci mbedd mi nit ñi di ko gis donc c'est des c'est des c'est des trucs ngi doxal maintenant nag le maître du jeu du de Macky du président de la République non de Macky en tant qu'homme politique loolu commencé wul ci biir alliance pour la République tey démb ba APR sosoo noonu la famille libéral yi noonu lañ noonu la parti yooyu noonu lañ ko tëngee noonu lañ ko tëggee tout le monde s'identifie au leader au chef du parti. moo tax difficulté bi PDS am pour le renouvellement mu ne fi parce que lu Wade wax rek nit ñi def ko. loolu moo feeñ au niveau de l' alliance pour la république. c'est ce que dis loolu la doyen wax dina jafe pour dindi ko. parce que milité wuñu dans un parti ils militent pour une personne. pour une personne ils ont un seul leader. ils ont un seul leader ñi nekk APR yëpp ña fa toog ma la ñuy topp. moom la ñuy déglu lu Macky wax moom la lu ki waxul noonu la xam nga lu koy andi li koy wane mooy le choix du candidat. Mmh. démocratie interne bi dans les partis politiques de gauche de de de de de droite dafa poser problème parce que loolu mooy indi réflexion bi parce que PDS dafa am problème de démocratie interne su ñu tànn su ñu tànn porte-parole ak haute haute du ñu laal du ñu xool avis base bi APR noonu. contrairement aux socialistes ñi nga xam ne dañuy consulte base pour yéeg foofu démocratie interne am na donc chef de parti bi mën na fa jóge keneen érité ko mu dox donc difficulté boobu la APR am maintenant ci ni muy doxee ban comportement la candidat bi war a am ci biir alliance pour la république c'est vrai Macky Sall reste et demeure le président du parti ñoom seen congrès wax nañ ko ba mu taxaw mais candidat bi nga xam ni moo nekkoon candidat bi bañ koy tànn candidat amuloon unanimité au sein amuloon légitimité au sein de l'alliance de l'APR tout à fait manque légitimité boobu mu am moo indi situation bii au sein de de l'APR parce que waroo bokk ci parti nga dem opposition da ngay xaar le la du président du parti parce que newu fii mi ngi dox yeneen mission pour que APR dund wax nañ ko il a il a il a suffi que ba seen cadre yi ñu ngi woote pour vendredi donc pourquoi ñu doon toog moment boobu yëpp pour évaluer les élections présidentielles. vendredi le 4 woote comme tu l'as dit hein. voilà ils ont un seul leader. ils ont un seul leader qui est à la tête de ce parti là. mooy buumi buumi donc parti boobu nga xam dafa am un seul leader mais durée de vie am du yàgg. non PDS a ngi fi ba léegi de. non xam nga PDS bokkul PDS est là depuis 1974. alors ah, hmm. bàyyi ma développé le PDS est là depuis 1974 de vie bi mu def. APR defu ko AD APR et né d'une frustration. ça mais mais kii APR nag n'oublions pas que ça a boo xam ne dafa def après très bien ce n'est pas la même chose maintenant gis nga ni URD génn na. génn na ci coalition bi coalition lañu wax. waaw moom laa wax dama ne biir alliance pour la république fi ne nii y a des responsables qui ne s'identifient plus su ñuy demee émission xam nga luy présenté wu. ki ji président mouvement ils ont même honte de dire que man APR laa bokk. non bokkuñu APR c' bokk. noo ñooñu ci ñu créé APR lañ bokk ñi may wax nii ñi nga xam ne fi mu ne nii ils s' identifient à leur mouvement suñu demee ci plateau ils se présentent comme président de leur mouvement. mais dañoo seeyaloon seen mouvement wala seeyaluñu déedéet APR lañ bokkoon membre fondateur APR lañ bokkoon. léegi dañu génnaat defaat. léegi fi mu ne nii seen mouvement lañu yor donc xam nga loolu mooy difficulté bi chance bi APR bu PDS am pour dund. demul vers le renouvellement APR du ko am pour dund parce que coow li bëri na ci biir group yi ci biir ci biir ci biir parti bi parce que peut-être Aziz du ko yëg mais ñun nga xam dañuy gëstu ñu ngi yëg parce que y a des gens yoo xamante ne nañ il faut aller vers le renouvellement il faut aller vers le renouvellement du du du du les mêmes personnes yi ko nekkoon di ko di ko di ko diriger est-ce que ñooñu war nañ mën a continuer di ko diriger. loolu d'accord naa ci yow. Mhm. loolu nga wax d'accord naa ci yow loolu dama koy lancer président de la ci boppam. Mhm. gis nga balaa ma ñëw ci loolu Arma Fall. gis nga amul benn kenn fii ci Sénégal ku am parti te gëmoo sa président secrétaire général parti wala président parti PDS Abdoulaye Wade lañ gëm. tout moo yore parti moo yore moo parti yu ba léegi wala PS loolu moo tax mu tas dem si yàlla si mu demee moo moo xaaj ñaar PS. Mhm. Moustapha Niasse ba tey jii moo géré moo moo géré AFP. mais tas na ba léegi moo géré AFP. laa bëgg a wax tey ñuy jël pouvoir nii mais euh, Pastef jëlul pouvoir Diomaye président moo jël pouvoir. Pastef bi ñu jël bi ñuy jël pouvoir boobu boobu existé wul. Diomaye président coalition boobu moo jël président actuellement ñoom problème boobu lañu nar am parce que amul parti bu jël pouvoir coalition ba jël pouvoir. parti bi nga xam ne moo ci gënoon bokk bokkul woon ci coalition bi. Pastef d'accord nga ak man loolu. tout à fait. woon ci coalition bi. parce que dañ ko dissoudre. dañ ko dissoudre voilà nag suñu parti laa wax dama ne benn président la am mi ngi tudd président Macky Sall muy APR waxaguma ci bennoo APR laa président Macky Sall mooy président parti APR képp ku ko gëm di nga resté ci biir APR ñafe ak moom. parce que mënoo ànd président boo am ne nee naa la wax naa la ko léegi mu def douze ans de pouvoir. musul ñàkk élection loolu musul am ci benn parti nag ci benn coalition musul am coalition boo xam ne tëri na pendant douze ans tasul coalition boo xam ne def na douze douze ans def na ci ñaata élection musul ci ñàkk benn mais tey ku ci génn da nga ku génn waxuma la coalition ku génn APR da nga gorawul nga am ceeg nga ñàkk ci am laa yemale parce que ànd boo boo wàcc sa ànd non ñu génn avant élection yi am nañ ci am nañ ci droit parce que aussi buñ newuñ parti bi comme ni nga wax léegi moo koy wan démocratiquement lañu la ñuy doxalee suñu parti bu fekkee président dafa ne dafa bëgg def candidat am ñoo xam ne ñu ne ñoom bëgguñu candidat bi dem nañu seen seen seen seen seen bopp baax na loo ci gis zéro virgule zéro virgule la ñu am <laughs> zéro virgule zéro virgule tey nee naa la coalition benn bokk yaakaar mooy deuxième ci élection présidentielle 2024 yëpp a fay parti yëpp coalition yëpp a fay déggoo kenn te nag damay dégg coalition bi la wala Amadou Ba la. non non coalition bi président Macky laa wax. dama ne c'était c'était le candidat de Benno Bokk Yaakaar. waaw ma waaw je nangu naa loolu. Ah. nangu naa mais moom la wala Amadou Ba. laa wax effectivement président moo moo ñu tagal Amadou Ba. moom pertewul de coalition bi a perte. ñoo perte. waaw bi ñoo perte. xam nga man lu ma bëgg régler ba ma lay relancer nii ba ma lay relancer xam lu ma bëgg régler la question du chef de l'opposition Amadou Ba moo am cinq pour cent wala benn coalition bi moo am 35 pour cent. parce que l'élection présidentielle aussi c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. mais bu ñu nee bu bu doyen normalement loolu moom doyen moo ci répondre normalement. non c'est Amadou Ba le chef de l'opposition. en tout cas su fekkente euh, su ñu demee élection présidentielle le président élu moom mooy fal hmm. mais logiquement ku nekk euh, deuxième yow yaay euh, chef de l'opposition pourquoi parce que en terme de chiffres suffrage yaa hmm. topp ci président de la république c'est ça donc président de la république ku mënti euh, ku mënte nekk boo toogee ki nga war a waxal mooy ku ñëw deuxième parce mhm. que c'est le suffrage populaire quand même. qui est mooy Amadou Ba. c'est plus c'est plus souverain. mais dama maintenant on pas euh, non les politiques quand même il y a des gens par exemple PDS PDS a une autre approche. Mhm. PDS ñoom dañu bëgg. assemblée assemblée bi ku nekk majorite groupe parlementaire de l'opposition bu nekk majoritaire bi. foofu la ñuy tànn le chef de l'opposition parlementaire nekk le chef réel de l'opposition donc mhm. ñaari approche la mais dans le cas de bon le problème de fond mooy li mu wax c'est-à-dire que Amadou et Ba a été un candidat de l'APR proposé à Benno mm mais Amadou Ba n'est pas chef de parti mm -hmm. Macky Sall c'est lui quand même qui a choisi Amadou Ba l'APR nangu euh, Benno nangu donc Amadou Ba logiquement moom moo nekk euh, chef de l'opposition mais à condition que président APR euh, nangul ko loolu cette légitimité là <laughs> c'est c'est ça la difficulté et maintenant c'est politique ah. non non non non non non président Macky Sall nee ko neex mais li mu wax dëgg la de c'est un génie politique daa jaxase carte yëpp. non jaxasewul benn carte. lépp la jaxase doyen da nga naan da nga naan. na Amadou Ba nangul président Macky Sall. na Amadou Ba nangul président Macky Sall. ah bon waaw. c'est-à-dire parce que dafa toog ci mbooloo yëpp ne leen moom laa tànn comme candidat vraiment man mosuma dégg. fu président waxee ne tànnatuma Amadou Ba wala recev nangootuma candidature Amadou Ba nit ñoo koy wax mosuma ko dégg benn plateau. mosuma ko dégg comme aussi mosuñu dégg Amadou Ba. waaw c'est ça aussi mosuñu dégg tamit benn benn jour Amadou Ba wax ne président Macky Sall def na ma wala def ma def na ma. non non mosul am mosul am. mais comme ñun Sénégal pourquoi sénégalais yi bëgg bëgg bëgg wax jooju di ci di ci téye dañu xuloo dañu jotali dañu joxe lii c'est normal aussi gis nga euh, parti boo gis ah, hmm. day am problème. da dama ne parti boo gis dañuy am problème seen biir. kon dama ne waxuma côté boobu de nee naa la ci commencement bi. ci man loolu wóoruma non non non waxuma ñooñu ñooñu parti boobu la bokk. au sein de la coalition Benno sax ci biir APR am na ci ñoo xamante ni non pas mouillé ko loolu mënuma ko wax xam nga tax mënuma ko wax. loolu mënuma ko wax parce que gisuma kenn koo xam ne nii campagne gisuma ko man wala boobu bi ñu koy def boobu maa ngi si leneen maa ngi woon sama campagne moom concentré sama campagne nga yow waaw loolu moo tax mënu ma ko gis dégguma ko fenn gisuma ko fenn daw ma seen commune man sama commune laa yëm fa la doon campagne donc ku mu muy la mooy ku muy la mooy man loolu mënu ma ko xam mais non xam nga le mal est fait xaw ma les les les les jeux sont faits le vent le vent est tiré pour boire mais non avenir u dafa jar a wax moom laa la wax léegi bennoo moom laa la wax léegi nii avenir bennoo yéen pour yéen avenir APR moom laa la wax léegi nii xanaa ah, dégg may commencé avenir APR si si simplement waaw mais bu fekkee da ngeen continuer ci logique boobu demaat ba vers 2029 incha allah yal nañu yàlla may fekkee ngeen di président Macky la kaay nga nekk candidat mu ne baax waaw boobaa bu boobaa. non boobaa kan ngeen di da ngeen di jur da ngeen di xuloowaat. xanaa déggoo li ma la wax man président Macky Sall bu bàyyee politique ma ah. waaw. li ma la wax nii am na man ak sama moroom ak sama moroom mais ku nekk sa logique nga am sa sa sa gis-gis nga am ci politique. président Macky Sall moo ma xamal politique moo ma dugal ci politique moo ma jàngal politique. donc mooy sama président. amoon nañ candidat. candidat benn bokk yaakaar mu tudd Amadou Ba président moo ñu ko ñoom ñu jàppale ko jàppale nañ ko yàlla dogal ne gañewul coalition bi gañewuñu donc loolu phénomène amoon la jàll na léegi nag comme ni doyen Ba moo war wax ak président Macky Sall. parce que moo ko tànnoon. Hmm. ne ko dama la tànn. ñoom ñoo war a waxtaan seen biir man li may ñaan mooy. li ñuy waxtaanee woon li may li may ñaan mooy Amadou a génn. parce que pour man man pour man. di gars yi wax dafa wóolu Amadou Ba. Hmm. waaw man loolu laa jàpp ba léegi nii ba léegi may wax yow nii man loolu laa jàpp man koo amul ci moom confiance doo ko def candidat il n'était pas obligé wala doyen il n'était pas obligé fa laa jëm muy gis nga muy Ablaye Daouda Diallo mhm. muy Amadou Ba muy keneen ak keneen ak keneen man dama jàpp ne ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi déggu président de la République lu wax parce que Abdoulaye Daouda Diallo dañu doon ne c'était lui en fait l'homme de confiance moom dañu doon ne ni président Macky Sall moom la gën a wóolu. non loolu loolu loolu loolu nit ñee koy wax. président daal boo bëggee dégg-dégg. waaye bokk na ci ñi mu wóolu. non dama ne boo bëggee dégg-dégg. ba mu ba ba tey bëggee moo la koo xam ne nii du wax wax ju bari. Hmm. du du wax wax ju bari kenn du ko gis lu bari. la muy jëf nag moo ëpp. digganteem ak responsable ñu nekk ci biir APR moom moo ko xam ak seen diggante. man li ma sant. Ah. mais nag mais man mu damaa def lecture. par rapport à la délégation. de de bi nga xam ne moom moo dem ci Daaka bi. ñoo fa nekkoon. dama def lecture ci loolu. waaw ah. euh, ña fa nekkoon mooy les responsables ñoo Abdoulaye Daouda Diallo les présidents d' ah. ak euh, ak ñenn ñi. mais depuis la nomination de Diomaye c' est moom laa wax te non je de la délégation demoon ca Daaka ba ñi ñu ñi président yónni woon délégation ñu dem ca Daaka ba. soo ci defee lecture da ngay gis ni. par exemple Amadou Ba mu nekkoon candidat bi bokku ci. nekku fi non Amadou Ba fi. n'est-ce pas nekkul Sénégal. wala ñi nga xam ni ils étaient proches de l'entourage de Amadou pendant la les élections présidentielles bokkuñu ca. ñenn délégation ñan ak ñan la woon euh, Adama Fall s'il te plaît. du dëgg. non non dama bëgg a xam dama bëgg a xam. waaw non c'est-à-dire euh, Farba Ngom euh, Mame Diop Abdoulaye Daouda Diallo c'est-à-dire. Mansour Faye. Mansour Mansour Faye. Euh, Mansour Faye il était dans la campagne. non c'est-à-dire moi de ñi doon parce que Amadou ñi ko doon accompagner c'était les mères Ngom. c'était il y en avait waaw moom laa la wax ñi ko doon accompagner dans la campagne gis naa ni bokkuñu ci délégation bi. maintenant est-ce que loolu nit ñi du ñu defee lecture duñ jàpp ni seen biir donte yaa ngi wax nag ni amul problème seen diggante ñoom ñaar amul problème de dama ne man bu amee problème tam lijjantuma problème boobu mm-hmm. dama am bu fekkee bi amul discipline man am naa discipline sama bopp pour parti bi joxante jox naa ñëpp cër xam nga ne parti bi amul discipline mais quand même joxante nañ cër am na détails yoo xam ne du ci dugg nit ku nekk na yaa war a xool président Macky Sall fa mu toog peut-être que dina am temps wu réfléchir xoolaat bu baax entourage bi ko waroon li mu ci mën a changé mu changé ko du ñëpp a baax ah ñëpp a baaxoon. Hmm. waaw. c'est vrai que changé na nag délégation bi changé na fa mu toog mi ngi réfléchir mi ngi noppaliku mi ngi xalaat dama koy ñaan moom mu réfléchiraat bu baax ci ñenn ñu ko gënoon jege. Hmm. bokk nañu ñu ko gën a yàqal ci parti bi laa wax parti APR. Hmm. waaw am na ñoo xam ne nii fàllu moom kenn du jël téléphone ñaata la ko dina wuyu seen téléphone yi dina wax ak nit ñi mais am na ñoo xam nu ñu jël téléphone. non léegi moom 12 ans jëluñu non non non si non ne gis nga bu ñu la falee <laughs> da ngay boo fàttee ñu la xoolal boo fàttee ñu da ngay folleeku ah. politique dafa am benn durée la rek du yàgg du dëgg na ñoo xam ne nii dañ nekkoon ak yow depuis 2012 avant 2012 ñoo nekk ak yow nga xam ne ci fulla ak fayda di liggéey ak ñoom ñu ànd ak président Macky Sall ba tey jii ñu wàcc boo leen woo téléphone doo leen jël duñu la woon jël. Mhm. te président toog nañu pale ba taay mooy leen di leen wuy seen téléphone di ubbi di jege askan bi. wax nañu ko ba taay mais dañoo nanguñu ko moo tax may ñaan président Macky Sall fa mu nekk na réfléchir bu baax ci loolu parti bi am na ñoo xam ñu ngi fi am nañ di gëm nañ ko te amana sax amuñ ci dara. Mhm. te moom lañ gëm. Mhm. na dooleel ñooñu ñu jël ñu jël parti bi liggéey. tout fait y des jeunes. y a des jeunes yoo xam ne nii ñu ngi ci ci parti bi. renouvellement. renouvellement defaraat parti bi. y a des yoo xam ne ñu ngi fi. dama am question bu ma koy laaj. Ah, balaa muy dem rek doyen mu ngi yow looy wax ci parce que am na ci ñu bëri ñoo xamante ne dafa bëriwul te bëgg naa ñu wax ci conseil économique social waaw daf ci jox ndomba tànk quoi après mu balancer rek démarré waaw question bi gars yi jox nañ leen ndomba tànk joxoon nañ leen ndomba tànk ba ñuy nekk au ba Macky Sall nekk au hmm. tey Macky bàyyi na démissionné nañ APR bàyyi nañ politique quoi dem nañ seen yoon Macky nekkatul président rek noo nekk nekk parti bi nga wax waaw nekkatuñu ci. kan moo kan la mu démissionné avant après élection yi amagul. am na ñu bàyyi politique. non waxuma loolu de dégg naa dégg naa kenn ku ne moom bàyyi na politique avant ñu dem élection. ok Maodo Malick dégg naa ko ci benn émission. mu ne Maodo Malick mu ne na politique. avant ñuy dem élection. six mois avant la wax président. kooku laa dégg mu wax ko mais dégguma kenn koo xam ne nii après président nee na bàyyi naa parti bi dégguma ko. amul ko. dégguma ko franchement. d' accord ah. waaw non disons que c'est c'est vrai que li mu wax quand même am na am na des éléments yi ma partagé c'est-à-dire que Macky c'est un politique Macky Sall du bàyyi APR mm-hmm. ah, ça quand même euh, ci politique le la màggee ci jël na nguur et il n'a pas renoncé au pouvoir ça ça c'est clair que Macky sera encore présent dans le jeu politique maintenant pour APR bon il y a il y il y a des problèmes quand même bon mhm. oh, il y a un problème le cas Amadou Ba c'est c'est juste euh, quand même euh, peut-être le problème le le plus immédiat. Mhm. c'est-à-dire que Amadou Ba euh, était candidat il a perdu il y beaucoup de supputations. Mhm. beaucoup d'interprétations. mais il faut que l'APR nangu toog waxtaan pour xool quel est le problème qu'il y a eu euh, situer les responsabilités Et, et maintenant, pour, pour l'avenir, honnêtement, c'est difficile que nga jóge ci opposition nga jëlaat nguur. Mhm. c'est c'est c'est une autre question. sa PS a échoué PDS a mhm. échoué. Mhm. bon est-ce que l'APR ju am na capacité. pour jëlaat nguur. loolu dafa laaj euh, je pense que en tout cas suñu bëggee jëlaat nguur il faut nécessairement que Macky Sall reste. parce que y a que lui qui a eu l'expérience d'une gestion présidentielle moom moo am légitimité bi PS pourquoi mënuñu woon dellu parce que amuñu woon ma euh, Abdou Diouf dafa mm-hmm. bàyyi dem yoonam mm-hmm. Wade c'est pareil dafa mm-hmm. bàyyi dem yoonam mais Macky il a peut-être une chance il est il est jeune il peut organiser une, une reconquête du pouvoir quand même ça c'est c'est important pour le pour l'APR mm. mais beneen euh, important bi nag bon euh, là je ne suis pas très sûr euh, avec euh, Aziz c'est-à-dire que mm. l'APR a perdu mm. mm-hmm. l'APR a perdu le, le cas d'Amadou Ba cache une autre réalité c'est-à-dire le contrat de confiance que Macky Sall avait Comment, comment la confiance des Sénégalais? Mm-hmm. c'est c'est ça qui est difficile et, mm-hmm. loolu comme euh, Adama l'a dit ça il faut vraiment ñu am benn mixage toi entre les générations la c'est-à-dire ñi nga xam ne ils sont les fondateurs les jeunes qui arrivent il faut nécessairement un renouvellement de la paire mm -hmm. euh, et, et loolu euh, bon Macky Sall seul ne va pas suffire à mon avis mm-hmm. il faut trouver euh, tu parlais discours de l'eau de l'actuelle majorité. Mm -hmm. mais l'APR doit changer de discours s'il veut revenir au pouvoir. Ouais, ce c'est pas le vieux disque là s'il ramène ça. <laughs> Bah, ça ronronne quoi. Ça et puis <laughs> c'est pas crédible. Et pour moi benn teste quand même devant l'APR c'est euh, c'est les législatives. Mm -hmm. ça est-ce que APR dina am majorité parlementaire ou pas. Mhm. c'est sûr et certain en tout cas s'ils arrivent à avoir après les législatives loolu mën na jur yaakaar mais s'ils font le mauvais score du PS ou du PDS mmh. là ça va être pour ñu ñëwaat en deux mille euh, en deux mille vingt neuf mmh. waaw euh, c'est c'est c'est clair ah a parce que aussi euh, euh, fi ñuy peser APR c'est c'est les élections législatives à venir mm-hmm. parce que le discours du président la lettre c'est s'opposer dignement mooy les maires yi nga xam ne am naa ko à l'intérieur du Sénégal ne transhumez pas mm. restez les responsables les responsables aussi bu kenn bouger parce que en fin politique xam na ni su garder l'ossature bi mu amoon au niveau national ak responsable yi ñëpp dem suñ demee élection présidentielle législative mun na am groupe parlementaire bu taxaw. pour pouvoir faire face je ne dirais pas une majorité mais une groupe parlementaire bu taxaw pour pouvoir faire face à ce pouvoir. waaye nee nañ opposition daa métti de. trop maintenant pour mu mën a am loolu pour pour APR mun a am loolu. parce que non majorité il faut sa dire des vérités. Mhm. Sénégal suñ la falee dañ lay accompagner jox la majorité. soo demee élection locale sax mën nañ la jox mën nañ la jox sax maire yi pour nga pour pour c'est-à-dire pour ñu jox leen. pour nga mën a liggéey pour nga mën a liggéey. après nag dañ lay juger en fonction. parce que jox nañ la lépp duñ la desal dara. loolu la ñuy gëmloo sax. loolu voilà électeurs yi que ne bu ñu amul majorité. à l'Assemblée du ñu liggéey maintenant a baat ma terminer Aziz li APR war a xeex mooy avoir un bon groupe parlementaire. maintenant pour avoir u mooy depuis que Macky Sall falu 2012 ce sont les mêmes personnes qui reviennent dans les responsabilités. Mmh. mais est-ce que su ñu bëggee éviter frustration boobu est-ce que ce sont les mêmes personnes ñoom ñoo war a jógee ci opposition bi dem delluwaat assemblée nationale. parce que su. Mhm. benno c'est-à-dire que na jéem a changé aussi. Mhm. am na ñoo xam ne am nañ troisième man troisième mandat député deux trois. Mhm. dëkk boo dem tey commune boo dem. am na fu koo xam ne bu ñu ko bu ko fa bu ñu ko fa taboon def ko ci liste ça me sûr et certain day gagné foofu. Hmm. day am. moo tax na xoolaat entourage ak ni muy ni muy defaraatee ay listam hmm. dafa am solo gis nga gis nga Adama. Hmm. gis nga Adama li ma lay wax dafa am solo. gis nga dafa am ñoom dañoo sonn ci APR boo doon xoolee seen kanam nga xam ne ñu APR la man ku ma xool dana APR nga gis sama kanam. <laughs> man man noonu ñëpp xolal man dama bëgg APR noonu ci en fait maa ko créé. Hmm. xam nga loo créé da koy bëgg. Hmm. lu ma ci am ak lu ma ci amul loolu sama nekku ci. Hmm. moo tax président dama koy ñaan gis nga liste yu ñu jëm nii législative bu ñu moom laa la wax ne la bu dee mi ngi dal mooy defar liste. avec le recul sax. avec le recul dina xam baax na ci sax mu révise bu baax xoolaat commune par commune département par département. raison par raison. xool ñan la fay ñan la na leen de. non choix yi kay daf gars yi dañ ko sax sax ci élection législative yi rek xam nga tollatul fu mu nekk nii ci euh, dama nekk ci nguur damay conserver nguur naa xool sama choix sedd naa kii wala sedd naa kale nekkatu ci loolu. Ah, kay loolu la nag. bu njëkk ba dafa nekkoon ci nguur. Mm-hmm. di sédd waa PS di sédd diw di sédd diw di sédd diw. Mm-hmm. loolu da ko da bëggoon conserver nguuram peut loolu aussi bokk na lu gën a lu gën a tax li am. mais lu jëm ci liste yi di ñëw mooy président parti bi mooy président coalition bi góor góorgóorlu ba changer stratégie bu mu doon doxale ok xool ñi nga xam ne mosul leen investir ci liste député xool ñi nga xam ne génn na woon leen 2012 mu génn leen dugal ñeneen nga dugal ñooñu ba xam ndax duñu gagné. Mhm. parce que élection yi passé élection présidentielle la moom Amadou Ba lañu doon tànn mais cette fois ci liste la ñu tànn moom maire ñu xoolaat ko bu baax ñu xoolaat ko bu baax jéem ci góorgóorlu xool ndax changement du am. Mhm. balaa may dem deux mille vingt neuf ñu xool ndax deux mille euh, fii ak six mois élection yi changement du am man loolu laa koy ñaan rek mu jéem a xoolaat entourage am. xool bu baax ñan lay xoolaat bu baax ñan lay tëbaat ci liste yi. mais après aussi war ngeen war ngeen war ngeen organiser wu nag ñu xam. ñu xam ku nekk am sa sa xëy na na xëy na am na jot. peut-être dina ko dina ko def. instant bii waaw peut ko peut-être dina def loolu. loolu am na temps mu toll nii ku nekk rôle bi nga koy wotam si loolu mu defaraat parteem surtout jeunes yi am na jeunes yoo xam ne dañu dynamique. Hmm. ñu fii Dakar ak fu ne. Hmm. ci APR. Hmm. te ba léegi nii nit ñi jox nañ leen cër mais nguur bi joxuñ leen cër. ok mooy li wax rek ñi wër président Macky Sall ñoo ko yàqal mais président sénégalais yi bëgg nañ ko. li lay wan loolu moom bi ñuy dem keroog toujours entourage sénégalais yi bëgg nañu président Macky Sall. Hmm. moo tax ma ne dañu naan lu musul am am na waaw lu musul am dañ ne am na mooy jomaay opposant jóge opposant ñu fal ko en 54 pour cent hmm. musul am Sénégal hmm. mais musul am Sénégal tamit ñu dem élection yoo xam ne président sortant bokk ci dëgg bii moom c'était moom laa wax bu ñu waxee nii rek nañ wax na ci des bi moom c'était c'était l'élection bu ñu waxee lii rek bu ñu analyser fii rek nañu analyser la ci des li ko waral mooy président bi génn bokk ci élection yi musul am moo tax ñu am 19 candidats waaw ma ne ko loolu taxoon ñu amoon 19 candidats nañ gërëm président conseil économique social environnemental Abdoulaziz may fàttali ne suñu gan tey foofu la bokk nekk membre APR génn nañ ci APR ñu dem conseil ana le président Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda mu nga fa ñu ngi koy remercier bu baax di ko nuyu ci plateau bi mhm. di ko di démarche ñu commencé def ci ci ci ci parti bi. ok waaw bon conseil ñu nga fa pour le moment. Hmm. waaw conseil kay nekk foofu parce que. bu ko ñëwoon dañ leen dissoudre n'est-ce pas. waaw xam nga man lan lu may en lan bu may lancé bi tey ci ci président Diomaye xam nga boo jëlee réew dangay ngay moytu ay defante. Mm-hmm. Mm-hmm. defante bokk na ci nga taxaw def discours. Ousmane Sonko taxaw na fii ne dañuy dissoudre tous les conseils économiques au conseil dañ koy dindi bu ñu ñëwee. Mm-hmm. mais boo demee ba tiim dossier nga xam ne lii mënoo ko dindi pour le moment liggéey loo leen. Mm-hmm. nga liggéey loo leen. Mm-hmm. liggéey loo leen. parce que budget bi voté nañ ko. c'est une option depuis daaw assemblée nationale. budget bi mi ngi fi. nañ leen liggéey loo parce que li ñuy liggéey ci réew mi la jëm. conseil économique ñu fa nekk bari nañ syndicaliste yi ñu nga fa. les les les euh, médecins ñu nga fa. les religieux. les religieux ñoo nga fa. ku ci nekk les jeunesse jeunesse baa nga fa. ku ci nekk am nga fa représentant bu fa bu la fa taxawal donc nekkul kër goo xam ne nii kër gu kër gu kër gu ñàkk solo la fu Birahim Seck nekk nekk 10 euh, ans di liggéey def ay rapport yu am solo ñu koy déposé ci euh, table président la république loolu am na solo di def ay ay ay recommandation yu am solo peut-être que gëstagul peut-être li nekk ci biir. Mm-hmm. mais war na leen liggéeyaloo quand même comme génne euh, nommé nañ leen ba génne ko journal officiel. Mm-hmm. di lay waral si dama koy ñaan mu xoolaat yëf fi installé leen. ñu liggéey ba keroog mu leen di mën ko kon vous n'êtes pas encore installé. non kenn installé bu ñu. ok mais loolu nag dafa bokkul ci lu doxal réew mi parce que bu fekkee sénégalais ngay sóoraale ne yàq la moo tax duma leen installé yaa ngi yàqal sénégalais parce que budget boo xam ne voté nañ ko ba pare ba teg ko sur donc kër googu da nga ko war a liggéeyloo au conseil commencé nañu liggéey. Mhm. bu leen di liggéeyloo assemblée ñu ngi liggéey ñetti in ñetti institution ñoo fi nekk assemblée national au conseil présidence ak conseil économique mooy quatrième institution Sénégal. Mhm. képp ku fi ñëw. bu fekkee da ko bëgg dindi boo ko fekkee place boo xam ne nii mënu nga ko dindi maman boobu mais liggéeyaloo ko. da nga leen di liggéeyaloo est-ce que est-ce que c'est pas crainte bi mu am parce que est président moom euh, donc coalition am jiitu ko. coalition Benno moo ko jiite. au conseil des collectivités territoriales. Euh, ah même su nekkee décret lañ leen nommé euh, Benno moo ko dirigé conseil économique social même su nekkee décret lañ ko nommé Benno lañ ko jiite est-ce que loolu mënul nekk crainte o niveau non, du président pense que Diomaye ni ma ko gisee ni nekkul ci logique boobu hmm. ni ma ko gisee ak démarche yi muy def commencé di def franchement ragal naa nekkul ci ci ci ci calcul boobu quoi li ma bëgg rek mooy mu liggéeyloo leen jusqu'à mu ko ba. suñu bu mu non attends soo leen soo leen soo leen soo da jox doole opposition bi di. non non tey soo ko mayee nag peut être que moom man sama xalaat laa wax ah. peut être que jàpp nekkul ci nekkul ci logique boobu. Hmm. parce que ñu ngi koy doog te jeune la aussi am na avenir ci kanamam lu mu war a def ak lu mu war a lijjanti. mais bu dee ay xeex ay institutions je leen mais yaa ngi leen bàyyi ñu toog est-ce que moom li mu wax tamit amul solo pour ñu liggéey loo moo gën ñu teg leen foofu. non loolu mooy yoon ah c'est-à-dire que président quand même c'est le garant du du fonctionnement de toutes les institutions. Mmh. donc il n'y a pas de raison que le président nouvellement élu bloque des institutions déjà en fonctionnel. Mmh. c'est la même chose pour l'Assemblée. c'est-à-dire que pour man bon euh, il faut que les politiques là se parlent. cest à dans les mm-hmm. six mois. c'est un apaisement social et politique. Mmh. Mmh. Assemblée, la majorité, elle est de Benno. la minorité, elle est dans la majorité présidentielle. Donc, il faut nécessairement de l'intelligence pour que le gouvernement oui, mène liguer avec l'Assemblée, mmh. ne serait-ce que dans une phase de transition. Mm-hmm. Bah, c'est la même chose pour toutes les autres institutions. Mm-hmm. Euh, le, le, le, Haut Conseil est là, il va fonctionner, le dialogue social va fonctionner, le Conseil devrait fonctionner. Les institutions doivent fonctionner. C'est le président qui impulse. C'est lui le responsable quand même du, du, du, bon fonctionnement de toutes les institutions. Mm-hmm. Pour moi, euh, il faut un pacte mm-hmm. Mm-hmm. entre tous les acteurs. Nous savons que yow fal c'est vrai, tout le monde reconnaît sa victoire, tout le monde reconnaît que yow est chef de, de l'État. Mais tu ne dois pas, tu dois pas bloquer les autres institutions. loolu tu es en porte à avec euh, le ta fonction. Mm-hmm. maintenant comme ni mu ko waxee pour man gis nga même la dissolution de l'Assemblée il faut pas que ça soit autoritaire. Mm-hmm. tu as un président tu as un chef de gouvernement tu as un président de l'Assemblée nationale tu as le président du groupe parlementaire. Mm-hmm. mais trouvons un calendrier commun. que ce soit consensuel. dañu liggéey cinq mois. ñu d'accord que telle date on dissout l'Assemblée. c'est ça la démocratie. bah c'est la même chose pour les conseillers hein même si fekkente ne tu vas dissoudre le conseil wala le haut conseil des collectivités territoriales mais tu dois respecter l'institution pour, pour man c'est ça la République hein c'est-à-dire même si tu es contre tu respectes les, les institutions les règles de fonctionnement mhm. maintenant booy décider ben tu vas décider en tant que chef d'État parce que tu as le droit de dissoudre pour man euh, vraiment mais bu euh, bañ nekk anarchisme quoi mu nekk. non un état est organisé. Mm-hmm. l'état c'est pas parce que tu es chef de l'état que tu te permets tout non tu tu le chef de l'état il est soumis à la loi. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est le premier citoyen c'est vrai mais c'est le premier à se soumettre à la loi. sinon on n'est plus dans dans l'état de droit c'est la même chose pour revenir un peu sur les les partis politiques la paire et les autres. gis nga ni ñuy xeexee nii pour que Diomaye respecte les institutions les règles hmm. l'APR s'il veut revenir au pouvoir amul beneen mécanisme bu mën a am si c'est la voie démocratique mmh. Mmh. il faut que Macky Sall chef de parti président machin tout ce que tu veux là il faut que Macky se à la démocratie mmh. c'est le chef de c'est l'autorité c'est lui tout, ce que tu veux là mais su bëggee jëlaat nguur amul feneen fu mu mun a jaar su dul la voie démocratique l'APR doit être plus démocratique mm-hmm. Benno mm-hmm. doit être plus démocratique mm-hmm. parce que c'est la faiblesse majeure qui explique la défaite de l'APR l'absence de démocratie et pour man vraiment s'il y a une leçon pour tout le monde gis nga nguur le parti qui au pouvoir c'est le parti qui sécrète les conflits du du keneen c'est pas yàlla c'est pas les jinne non hmm. <laughs> c'est la manière de gérer ki oui. tous les conflits de la paix viennent de la ouais, et donc bon démocratie c'est vrai que c'est un mal nécessaire hmm. man wóor na ma ne bon je suis d'accord avec lui aussi sur les élections Macky dafa dafa dafa mbong ci élection <laughs> non il sait organiser les élections. ça, ça c'est son atout. ça c'est la même chose pour euh, Tanor par exemple. Mm -hmm. Tanor Dieng avait cette capacité d'organisation. Mm. moom tamit am na am na cette capacité d'organisation mais bon s'il met ça au service de l'APR je crois pas que APR seul mën a am groupe parlementaire. Mm-hmm. il faut aller coûte que coûte avec l'APR et benn si vous voulez vraiment revenir à l'Assemblée avec force la posture du du PASTEF et la coalition Diomaye est telle que ñoom xam nañu pour ñu am majorité majorité pour nga am ko tey ji il faut ñu nekk benn et l'APR ça doit être sa stratégie si si si vous êtes divisé mhm. je vois mal comment l'APR seul non peu. ci génn non je ne crois pas. merci Abdou Aziz. ah waaw <laughs> mu ngi noonu. temps bi jeex na yow moom du ma la wax temps jeex na xam nga ne temps bi jeex na gis naa la ngay xool sa heure léegi maîtriser avant première la def. Abdou Aziz merci beaucoup c'était un plaisir. vraiment ñu ngi lay sant bu baax a baax. donc j'espère que di nga ñëwaat beneen yoon fekk incha allah président Macky Sall di si dañu toogaat waxtaan ak ci yeneen. waaw maa ngi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp. Mm-hmm. vraiment di rafetlu mm-hmm. invitation bi. Euh, di lancer appel sama président Macky Sall hmm. di doyen wax na gën a réfléchir at ci parti bi avant bo benn bokk yaakaar hmm. bu bu bu amee démocratie si parti bi rek mun hmm. na law ci benn bokk yaakaar parce que APR la gën a ko que benno ma koy ñaan mu gën a réfléchir comme toog gën a defaraat taxawaay yi ak toogaay yi ñu jëmaat élection peut-être fii ak six mois wala sept wala xaw ma préparé nag nañ incha allah pour dem élection ak président Macky Sall. mu ñëwaat kon jeex na Abdou Aziz Ndiaye membre <laughs> APR. waaye militant yeeg tout le monde maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax euh, moom itam mu nekk membre du conseil économique social environnemental waaye bokk ci li nga xam ne moo di APR euh, on espère que message yi jàll na autant pour le président Macky Sall pour le nouveau gouvernement on espère que vraiment jàll na jërëjëf Adama Fall. Euh, à vendredi incha allah à vendredi incha allah ne ko li mu sol rafet na nañu nañuy nañuy sol nañuy nañuy ñawal il faut ñu sant merci beaucoup. merci et bon repos on se retrouve vendredi incha allah. incha allah demain c'est l'ascension incha allah kon mu ngi noonu ñu ngi leen jox dig daje vendredi merci à tous merci à la régie rendez-vous vendredi à 11h.